tey nag ñu ngi cité Mixa toog ak le grand champion Santa Gningue tey ñu nekk fii kër Demba Xarañ la moom itam di waaju baax a baax Santa maa ngi lay nuyu di la ziar mais balay may nuyoo tamit bala ma cay sori sax dama lay jaale la mënaat c'est Pape Dia nekkoon nit bu baax yaakaar naa bokk na man ngaa wax ci moom loo xam ne daal hmm. ku ko dégg dina teel loolu maa lay nuyu di la waaw maa ngi lay delloo nuyoo bi di la fay di nuyu euh, internet yëpp aussi comme ni nga ko waxee rek Pape moom su wax si moom ma ci sori boobu léegi dama nekk sous le choc parce que comme ni ma ko doon waxee Bombardier du suma rakk yow yaa suma rakk loolu la ma daan wax yéemuloon rek cee wax daf ko dund ak man ba ma xam ko xam nga mu nekkoon nit boo xam ne vraiment fédérateur la woon rassembleur la woon une personne très modeste très humble nit bi nga xam ne tey soxla boppam daf soxlay jàmbur daf ko gënal soxlaam euh, Pape Dia bu ne la xaar ma dans dix minutes maa ngi ñëw si tali bi mën na def une heure temps si diggante bi te ay nit rek ñooy tax du bëgg a gàntu kenn ku mu gis taxaw ak yow loolu nit la woon boo xam ne vraiment ak nite mu ngi woon ci moom mbaax mu ngi woon ci moom borom dënn bu yaatu la woon foofu rek laa ci yem xam naa ne àdduna gërëm nañ ko mais yàlla na ko yàlla yërëm tey nga ñëw fii ci tamit saa ñu fekk la fii hmm. teewaay bi drapeau Keba Kanté moo moo xew hmm. lu waral sa sa ak Keba Kanté loo ci mën a leeral waaw Keba moom suma xarit la suma frère la hmm. lu toog aussi di liggéey di fàttali aussi les sénégalais ne mosuma bàyyi lamb parce que amoon naa benn combat ça fait deux ans de cela léegi Mac Tidiane Faye benn promoteur bu ñu wax Bassirou Ka moo taxawoon mais yàlla def na aussi di n'a pas pu concrétiser ce combat là yàlla moom moo xam lu tax mais sans bi xam ne ñu ngi nekk aussi à la recherche d'autres choses loolu sax moo ñu gënoon tënk gën ñu tardé parce que si bëri avance su jàmbur promoteur bi nekk dans des lacunes pour xam a concrétiser combat bi ñun ñëpp ay nit lañu. yoon la pour ñu déglu ko toog aussi xaar ko ba xam fan lay mujjee combat boobu noonu donc instant bi on est libre xam nga ku nekk si ñun aussi mu ngi toog di wuti beneen combat. ñu ngi lay demal waaw bu ma waxee dëgg nag mënuma wax waaw parce que man bu dee man personnellement. amaguma contact bu benn promoteur depuis saison bi ubbi ba léegi mais maa ngi wax ak suma manager muy Matar Ndiaye wax na ma de barke dem rek ne ma am na ñoo xam ne mu ngi waxtaan ak ñoom te am na yaakaar ne incha allah rabbi léegi mu am combat boo xam ne nii taxaw en tout cas mu ngi ci bu baax a baax loolu la bàyyi sumay loxo. sa xel wax naa ko léegi les deux dama ko wax. les deux mu géejoon sama combat moom ay at i la de sax. Ah, loolu du loolu du jafe xam nga moom. santa moom santa moom xam nañ leen sax ko war di wax ne diw bërekat la mais diw xeexkat la. Ah. parce sax xëy na li jaaxal nit ñi léegi sax si santa mooy santa di ko lu tax Santa xeexatul waaye man ku ma mos a xam ku mos a jël suma combat la di nga dangay xeex loolu lañ ma mos a xamee. les deux daal na sa xam. les deux ak ñeneen parce que du ma def fixation si moom parce comme li may wax moom si boppam toll nañ moment boo xam ne suñu combat am suñu moruñu. jàpp naa ne man dama daan góor a soog bu baax a baax a baax yow mi fa nekkoon yaa nga foon tu n'es pas tu n'es pas aveugle mais nag comme comme niñ koy waxee. comme ni ngay waxe waxee <laughs> tubaab daf koy wax ah nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. tubaab day wax loolu. looloo leer ah te li am keroog si làmba après. ñëpp gis nañ ko. c'était très clair kon bu bëggee na ñëw may ko revanche war a ñu leeral. am na solo mais dinaa la laaj leen làmb ji. Mm-hmm. ren dama gis mu mel ni grand contre petit bi moom la amateur yi gën a bëgg. Mm-hmm. da ngay dégg Reug Reug Bombardier. Mm-hmm. dégg Balla Gaye Boy Niang. Modou Lo Ama Baldé. Gris Bordeaux Gouye Gui. Tapha Tine Malick Niang di dégg di dégg di loolu noo ko gisee yow. daa war a am wala. dafa war a am. grand contre parce que loolu tey ah. mooy euh, safara yi làmb ji jamono yi ñu toll comme yow ban ak ban. parce que tey euh, ku ci mel ni euh, euh, ah bon Ama Baldé ñu ngi wax digganteem ak Modou Lo. waaw bon je pense que ne combat la boo xam ne ba moytu dina taxaw baax na pour mag ñi may seen rek ay chance et puis ñi ñuy may chance aussi nekkuñu ñu ñuy tëdd nelaw dañu fi def dara. pour dañ ko mérite. dañ ko mérito quoi qu'on puisse dire parce que liggéey nañu ci làmb lu war a maa tax ñu bëri ak ñooñu. ku ci mel ni Boy Niang tey muy xëccu Balla Gaye pourquoi pas ne pas lui donner sa chance parce que c'est un bi nga xam ne ci biir ay moromam tey li fa war def def na ko c'est un gosse très talentueux te il est très audacieux pour wax ne jox leen ma Balla Gaye. mais moom est-ce que gars yi collé muñ ci combat ak Lac de Guiers bi mu jógee. Ah, xam nga tey combat toujours. que dañ ne waroon na fa def résultat. positif. Ah, je veux pas être l'avocat du diable. mais est-ce que tey jii ki nga xam ne nii moom mooy euh, euh, Lac de Guiers dafa ñëwoon rek pour tëdd rek euh, ba kii daan ko dem ñibbi Boy Niang daan ko dem ñibbi te ku ne xam ne ne tey Lac de Guiers mbër mi gën a gën a naqare bëre ci làmb ji moom la tey jii bu ñu demee ba Boy Niang bëree ak moom ni mu bëree ak moom ba ñu dem foofu duma ma dugg mais dama lax ne mën na daan ku ne kon mën na daan ku ne dafa jeexal ay wax bëgguma personnaliser le débat on discute d'une manière générale kon bu may waxtaan damay généralisé du ma personnaliser dafa fekk ñuy wax combat mag Modou Lo. Ah, d'accord mais ñu ngi koy wax moo tax ma ne la man na daan ku ne. ku mu mënta daan parce que làmb la ñu ne. mbër nag bu xasee ba bay bëre ngem buy dem làmb ja am na lu yaakaar ba tax muy dem donc moo tax ma ne la man na daan ku ne. Reug Reug tudd nga ko léegi guy gi mérite na may sens. guy gi ndax mérite na bokk na ci ñu war a may sens. waaw guy gi mu ngi laaj euh, Gris Bordeaux pourquoi pas c'est un combat logique. Gris ak Gouye Gui. mais c'est un ci kaw nag mais c'est un combat logique Gris euh, euh, def na preuve am ci biir làmb est-ce que tey Gouye Gui day continuer rek bëri ay moromam yëpp est-ce que Gouye gi moment bi day continuer rek jox ay rakam chance tollu foofu moment bi dafa tollu moment bi bëri nag ak ay moromam ce qui est sûr et certain bi. instant bi magam yi nekk ci kaw te jiitu ko ci làmb ñoom la war a yóotu parce que ci biir moromam def na a na fa lam fa war a def nañu waxante dëgg. Sa Thiès soo koy awalee. Ah, ah, waaw Sa Thiès waaw Sa Thiès. naa ko muy wax waxi Eumeu Sène am na ñoo xam ne moom ku mel ne raay ba sax ca Mbour. Ah. moom nee na loolu du wax ko sax dévaloriser. Eumeu Sène la waaw waaw loolu moom man naan moom peut-être mën na wax loolu mooy man en tant que sportif. am na loo xam ne peut-être man il est dans son droit moom mu défier ki ko neex mais reste à savoir est-ce que ki mu défier dina bëri ak moom. yoonu lamb moo rek bëri ak moromam yëpp est-ce que guy gi moment bi day continuer rek jox ay rakam chance tollu foofu moment bi dafa tollu moment bi bëri nag ak ay moromam ce qui est sûr et certain choix bi. instant bi magam yi nekk ci kaw te jiitu ko ci làmb ñoom la war a yóotu parce que ci biir moromam def na fa lam fa na fa lam fa war a def nañu waxante dëgg. Sa Thiès soo koy ah, a ah, waaw Sa Thiès nag waaw Sa Thiès. naa ko muy wax waxi Eumeu Sène de. am na ñoo xam ne moom ku mel ne raay ba sax ca Mbour. Ah. moom nee na loolu du wax ko sax dévaloriser. fekk Eumeu Sène waaw waaw loolu moom. man naan moom peut-être mën na wax loolu mais man en tant que sportif. am na loo xam ne peut-être man il est dans son droit moom mu défier ki ko neex mais reste à savoir est que ki mu défier dina bëri ak moom. yoonu làmb moo ko yoonu làmb moom mooy la. maanaam Sa Thiès est-ce que mësal est-ce que. Sa Thiès dafa jëlee échec ci ki xam ne mooy Boy Niang. donc bu jógee échec ci Boy Niang pour mu joti ji ci Eumeu seen bu ñu waxantee dëgg il faut mu defaat beneen palier. pour mën a jot pour mën a joti ji si moom parce que mënoo def échec ci Boy Niang ba pare xam nga jóg directement dem ci ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène bi nga xam ne tey dégg na daal yi mooy lan dégg na roi des arènes. et puis aussi booy seet champion yu mag yi ci biir làmb bi yëpp ki nga xam ne mooy Eumeu seen jëflante ne ak ñoom am fu mu jaar ak ñoom donc ça sera pas une logique aujourd'hui ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès jóge ci défaite ci ki nga xam ne ni moom mooy Boy Niang dem directement ci ki nga xam ne ni moom mooy Ama Sène malgré nag dans l'avenir mën na bëri ji moom moom parce que c'est un gosse bi nga xam ne am na talent choix bi c'est un bi nga xam ne tey il a toutes les qualités requises pour devenir un grand champion léegi nag li mu war a def mooy cultiver une certaine maturité maturité par rapport ak moom une certaine lucidité dans ses combats parce que booy seet combat ak Boy Niang bu ñu waxantee dëgg il a manqué de lucidité. lucidité boobu mooy bi mu manqué mooy li xam ne moo ko soxla ci combat boobu voilà. am na solo Bombardier rek jaarul. Bombardier rek rek man du ma toog sax di ko waxtaane du yoon. ah non du yoon. Bombardier ne yoon la. ah non dans sa communication oui moom am na droit wax boobu wax ko c'est sa pensée à lui. gëm-gëmam la mais man c'est un frère à moi on peut ne pas partager les, mêmes avis. yow lu tax nga ne du yoon day yàq ah, làmb da koo dabu ci war a bëri moom dabu dabu ci lan. Reug encore une fois dama koy wax c'est un grand champion. maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla bu mu am ndog ndog ci carrière mu àggali ak sagoom yàlla na ko yàlla defal mais ci moment bii nii vraiment damay wax ne bëre ak Bombardier du yoon Bombardier combat yi mu war a bëre bari kon revanche am ak Tapha Tine c'est mu ngi fi revanche ak Gris Bordeaux mu ngi fi Balla Gaye Bombardier daan na ko pourquoi pas tey jii mu ta jox ko revanche moom looy tey moment bi il n'est dans la logique di bëri ak bomba dans ses calculs loolu il a ses propres raisons kenn du ko dindi mais da tey jii Bombardier am na lu ko dese ci làmb mais tey Bombardier ëlbati ko bëree Gris Bordeaux ak ak Reug Reug combat bu amul benn suspense benn suspense la am benn suspense la am nañu waxante dëgg xam nga léegi Bombardier daan na ko pourquoi pas tey jii mu ta jox ko revanche moom loolu tey moment bi il n'est pas dans la logique di bëree ak Bombardier dans ses calculs loolu il a ses propres kenn du ko dindi mais da tey bombar Bombardier am na lu ko dese ci làmb mais tey Bombardier ëlbati ko bëree Gris Bordeaux ak ak Reug Reug combat bu amul benn suspense ban suspense la am ban suspense la am nañu waxante dëgg xam nga Reug Reug dama koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla lafal cat yàlla bu mu am ndog ndog mais je dis fii man de ñiy wax waaw ñiy valider combat boobu bu doon maa koy valider pour mu taxaw du ma ko hmm, valider. parce que du yoon. du yoon daal du yoon parce que Bombardier manqué wul adversaire ci làmb boo war mën a ëlbatiku ne maa ngi bëree ci ki ne moom mooy Reug Reug wax wax na de xaw ma nag. deux fois ra deux fois roi des arènes. deux fois roi des arènes. ko moom. defe naa kenn defagu li nga xam ne tey jii mu combat boobu bu doon am ci ban logique lay amee. ah logique bi daal Bombardier moom moo ko xam moom mi ne nangu naa bëri non si ban logique lay amee c'est logique ban. ah Reug amagul defet de. amagul defet yàlla bu mu ko am. dama koy ñaan. yàlla bu mu ko am parce que ma ñaanal ko defet je gagne rien sur ça yàlla bu mu ko am yàlla bu mu am ndog-ndog ci carrière waaye nag. yal na yàlla def buy bëri ak Bombardier combat ba ñor nga xam ne Sénégal yëpp dañuy concentré wu ci boobu combat mu nekk un combat boo xam ne tey jii ñëpp moom la ñuy toog di xaar mais combat boobu amul enjeu moment bi ñoragul. ñoragul. tête sur les épaules te xam ne defaguñu dara dañuy toog sunu lamb d'or mu ngi fi mais meilleur lutteur de l'année mu ngi fi mais meilleur lutteur de ne bu weesoo roi des arènes mu ngi fi. et que benn ñëw aussi pour loolu am nag il faut garder la tête sur les épaules gëm ne ñun defaguñu dara li ñëpp def ba dégg daale ñun one est capable de le faire ñu toog fighting wax naa ko léegi suudewu comment parce que ay nit bu leen yàlla boole ñu ànd bokk benn mbir bu ñu bëgg dañuy boole seeni xol bu ñu boolee seeni xol yàlla wàcc ci ñoom def fa jàmm ak salaam te tey yoof bari na ay xale yoo xam ne ils sont pétris de talent il faut bien les encadrer xam nga tette leen gunge leen ci yoon xam prépare leen comme lu ñuy préparer tous les grands champions pour un champion dañ koy préparer de par sa mentalité d'abord parce que tey on peut pas être un champion te amuñu un mental fort et mental fort bi moo lay permettre dans les moments où xam nga da nga nekk dans une mauvaise passe ou bien xam nga yaa ngi trébucher mental boobu tée la ba nga mën a jógaat jàkkaarloo waat ak àddina wan leen ne je suis là et je resterai toujours là donc yal na leen yàlla sàmm ñoom waa Yoff ñu àggale seen sago mais aussi sàmm mbër yëpp sàmm mbër yëpp parce que quoi qu'on puisse dire ñun mbër yëpp ñun sportif yëpp benn lañu